<laughs> ay seen rëg-rëg mii boo leen xamoon <laughs> ay seen rëg-rëg mii boo leen xamoon dana daanu ba daanu fu dara nekku de waaw <laughs> ay boo leen xamoon li yor seen rëg-rëg mii xarim xarim Njaay bi dara lekk xaj xarim sama papa xarim Njaay xarim Njaay barke alquranu karim bi bu dee lekk xaj bi ñu wax dëggal ko ci kanam tuuti dina ko lekk maa la ko bu tuuti dee xaj bi muy lekk man de lu mu def daanu de moom rëg-rëg lu def daanu day daanu de bàkkoom bi neex naag neexut loolu moom samay néew ji waaye day daanu de ci kàttanu yàlla munu ci dara première defet de rëg-rëg da dañ de mais waxoon tey rek maanaam nañ xamoon naa ko man lamb ma la ci wax fayeeku ba tey jii laa def vidéo ci treize heures may leen arbitre bi na fexe ki daan na ko jox ndamam katapi yu mel ni musa am ci histoire katapi musu fee am mais Sa Thiès nag waa géej waay nañ dem tëddi nelaw nelaw ba yow dem daan ko ñu jox leen seen victoire victoire ñoom ñoo ko moom amul problème jëruñu ci sonn jërëjëf merci beaucoup <laughs>